alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala alfatihi alxaatimi sayidina muhammadin nasiri alhaadi ila siratillahi almustaqim wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi alazim mbokki jullit yu tedd yi nekk ci gox yu fasantikoo yi ci réew mi ak ci bitim réew tànn leerak ak jamono di ko leerloo rajo télévision bu wal fajri fu ngeen mun di nekk rek maa ngi leen di boole ti juróomi baat yi ñu yàlla boole mu gën a tedd gën a sell gën a sakkan doy walis bépp nuyoo te benn nuyoo mënta doy walis ko ma tibbee ci sama xol jëmee ko ci seen jëmm yu tedd yu sell yi muy asalaamualeykum wa rahmatullahi wa di del siwaat ci kartanal yàlla di sofak ak yow li ma sosoon yow démb rekk ci waxtu wi te mooy mbiram miraas démb laa ubbi buntu bi muy première émission tey nekk timit ñaareel bi ma waxoon la miraas ak ni yàlla jëlee engagement wu boppam séddaleel ko boppam ngir bañ séddalee ko yonantu bi ngir bañ ñi mere ko rek yàqule wala ñu noonoo ko rek yàqule wala ñi am lu ñu yëg ci xolam ci suñ xol yi ba jëmee ko ca moom yàqule yàlla jëlal boppam engagement ne may maay sédd leen sama mu yusikumullahu fi awlaadikum ba muy jeex mu ne wasiyatun min allahi waxoon naa la tamit ne la miraas balaa mën a am na fekk ki ñuy donu dee dëggal nañ ak dee xam wala ñi xaj ko ci ñuñ dëggal ak deexam muy ku ñu ñàkk ku ñu amut ci moom benn xibaar bim demee léegi buñ jokkee ay atam mat na juróom-ñaar fukki at ak juróom déggatuñ ci moom dara te ba muy dem exemple juróom fukki at la xamoon waxin dama laa misaalee loolu rek mën na koo ëpp mën na koo manqué waaye léegi daal ku doon seet na taleem mat na juróom-ñaar fukki at ak juróom kon dañuy doon halal ja ndax too daan wax ne amaaru ummati maa bayna sittina wa sab'in naka noonu timit su fekkee ndey ak baay bokk dugg ci oto wala ci avion wala ci bato mu suux wala mu daanu wala mu accidenté ñoom ñaar ñëpp dee xamuñ ku ca njëkk a dee kenn du doonu sa morom xalaa waaye buñ xamoon ne yaay ji dee na ba pare ñu yóbbu doom ji hôpital mu door a dee donte benn minute mbaa ñaar la moom day donu yaay ji bu paree ñu donn ko looloo daloon ummu kulsoom bintu ali ak doomam ja Seyd ibnu Omar ba miir daanoo ci seen kaw ñi deyandoor ala kulli haal kenn doonul sa morom foofa sax jëfee nañ fa ñetti sunna ba ñu deexee ndoor dañ leen a boole ñoom ñaar génn ak ñu ne kon boole ñaari niiw jëm kaw génn ak jullee dagan na bañ deexee ndoor ñoom ñaar dañ leen a gasalam bàmmeel boole leen ca kon gas bàmmeel lu hëpp ñaar jëm kaw nga boole leen mennam pax rek ñi dendante jëm comme na yonent bi defoon ña deewoon badar di fukk ak ñeent loola dagan na juróom-ñett yëpp waa ansaar lañu woon juróom-benn ya di muhajirina ya noonu lañ leen ko boolee woon ak ña dee woon fële ca Uhud kon def nañ ko ci ñoom ñaar naka noonu tamit jëfandikoo nañ ci ñoom ñaar na doon wut sa morom ndax xamuñ ko ca mujj dañuy jàpp ne rek kii bàyyiwut fi moromam kenn bàyyiwut fi moromam kon loola leer na su nit ki nag dee yàlla dogal soxnaam dafa ëmb ndax dañoo war a miraas njëkk muy am doom wala ndax dañuy bàyyi ba soxna sa mucc ñi xam fu wànnintuy mujj ak bërëm bu ñi door ko miraas def loola de moo gën a dal xel loola tamit moo gën a jamtalu mën nañoo bàyyi ba soxna sa mucc ñi xam fuy wànnentu mujj ak bëtam ya ñi door a miraas ndax diggante ba mën naa am du yàgg ndax kat am na ñu wax ne nag am na ñoo xam ne seen cër moom du sensé mukk ñi nga xam ne seen cër du sensé kay nañ leen joxaale ñi dem ku mel ni soxna comme doom xam na cëram mënta sanseeti jox leen ko sumunam mu dem kii kay doom la ju doole ko ci doom yi rek doom xam na ba pare yaay tamit comme doom xam na soxna maanaam cëram dootul soppeekooti kii doom la jag bu naree juddu doom ju doole ko rek la bu juddu wut tamit dara su dus rek mooy cëram ah ñenn ñane daal nañ séddale alal ja ci ñëpp rek ba mu des cërëb ki nga xam ne moom lañ ëmbu ñi bàyyil ko ab cërëm borom xam-xam yi laaj ne waaw buñ koy bàyyil ab cërëb moom dañ koy bàyyil cërëb kennam ndax doom danañ di kenn buy kenn kimit dañ koy bàyyil cërëb góoram dañ koy bàyyil cërëb jigéen loo ca xam xanaa léegi médecine avancée na mën nañ koo xam léegi nag loola follee ko na médecine avancée na mën nañ koo xam su ko defee tamit ndax dañ koy bàyyil cërëb ñeent wala juróom am na ñuy jur juróomi doom benn yoon ak ñeent loolu tamit mën nañ koo xam médecine avancée na wala dañ koy bàyyil cërëb fukki doom ak ñaar ndax kat am na ñuy am fukki doom ak ñaar ci jigéen benn yoon laa la wax su boobaa kon lim yi buñ ko ciy bàyyil euh, am na werante waaye lu ci mën a am médecine avancé na ba xam mën naa nekk fukki doom ak ñaar wala juróomi doom wala ñeent wala ñaar waaye li médecine avancé gun mën koo xam mooy ndax dana indi xale bakkanam du ko xam foofu moom médecine avancé médecine heggagut ca dana juddoo bakkanam du ko juddoo tous lañ ci xamut ñoom ñooña sax ñu ne ñooy médecins yi xamuñ sax bala kii a judd ñoom danañ di am déet kon nag la gën a dal xel daal nañ jëlaalal ja bañ caa dundee teg ko palaas bu soxna sa muccee rek ñi miraas ko kenn ku ne xam sa cër coow du ca xamati lépp ne nañ waxoon naa la timit alal jooju ñi war a miiras la ca war a génn di ay xàq yoo xam ne dafa xaju woon tabaarakalaaw nekkoon lu sax njëkk muy dee am lu xaju ca jëmmi alal ja lu mel ne ak tayle ak ak tooñaange wala ak bor wala loo xamee dafa sax ca deega wala loo xamee dafa sababoo ca deega lu mel ni dénkaane ya la sax ca deega muy waajal ko pour mu dem wuy ji mu mu mën koo jébal boromam yëpp mooy la war a génn ci alal ja su ko defee nag bu yàlla dogalee ñu génne lii ba pare la des ci àll ja ñu xaaj ko ñetti xaaj benn kaaj ba ndénkaanam yam waxoon nañ ko ca defal nañ ma ki tabaxal jumaa nañ ma tabaxal daara yaxal quraan nañ ma doxal diw te fekk ki nga wax warul laa donu ndax laa wasiyata li waarisi laa wasiyata li waarisi la yonent bi waxoon nañ ma ci gasal teen nañ ma ci dimbaleel daara sàngam nangam hee ñu jël loola yóbbu ko ca su ko defee ñaari cër ya ca des ñetti million nag bañ defee yëpp fay bor yeeg waajal la ceeg ah, xaq ya ca waroon a génn nag buy asaka jaag yeneen ya ca xajoog yëpp ñetti million ci des benn million ba la ñuy jël def ko ca ndénkaane ya nga waxoon dem xaj na ca bu ca xajut way doon na ne nañ yokk ñu yokk bu way doon nañu ñëpp ne duñ yokk fii la ñuy xam lam lam xattan ñi xenu ko ca seet ya gën a fade rek ñu jiital ko ñaari million ya des nag moom lay woy donnu ñaa fas yéene war a donnu su ko defee nag way donnu ñooñu war koo donnu boo ko jëlee farañ fànce goo ko góor ña fukk lañ soo ko gënee farañ fànce mu yóbbu la ci fukk ak nga farañ fànce waat ko mu jox la ñaar fukk kon nit ku nekk nga yëg nga ñàkk yëg boo dee ñaar fukk ñu góor ñi ngi taxaw jonkonu sa xalal ji yàlla jox leen ca cër yow nag boo yeboo nga jiital sa xalal jile def ci lu baax bala nga dee ñu koy donn wa maa tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu indallah waaye yonent bi daana wax ne nit ñi li ëpp ce ñoom seen xalal li ndonu lañ gën a xiir desal ko fi ci seen xalal ja ñi wala feret mu jëm ci seen biir bàmmeel jël xalal di ko korkori rek doo ca lekk doo ca lele doo ca dimbale néew ju doole yi ba dee ñi lakk la maam Khalifa dafa daan wax ne xalal bu saxee ci xol te saxut ci ténk borom du ca lekk du ca lele bu dee dem safara bu saxee ci ténk te saxut ci xol borom dana ca lekk dana ca lele bu dee dem aljana su ko defee nag boo ca lekkut lelewuloo ca ba dee tekkeeku nga jëm ci bàmmeel takk nañ sa loxo yi moomatoo dara takk nañ sa tànk yi jëmatoo fenn sotti nañ sa biir bi suuf ba mu fees laajatoo dara ndax laa yem lawu bat naa adama ila turab sàng nañ laak juróom-ñaari mètre perkaal ya gasal la pax mu dollu ni sa tëdduwaay dugal la ca ruq booba jubale la penku jëli xet yaak tabaarakallaahu xeer yaak sës la ko sotti la suusa dem nag jàngal la ay xuluwa raxasu ji dem añi continuer at ca waxtaan wa ñeenti baat ñeenti fan juróom ñi fàtte la su boobaa nag da ngaa war a góorgóorlu bu la ñëpp fàttee ci diggante mbokk ak doom ak xarit ak soppe fekk yow fàtte woo woon sa bopp def la góor ak sàmm ga defoon ñi ci caawa gi yëpp di ma déglu war nañ koo roy góor la woon goo xam ne ab sàmm la woon nekkoon ci caawo gi bëgg doom lool màgget lool li màgget màgget mooy ratti bu ñëwee joxe meew mi doom ya lekk ak soxna ya benn bis mu feebar doom ya sàmmi oora meew mi fàtte ko mu toog ne waaw ana meew mi man soxla naa di ñu ne ko papa dañ la fàtte woon de mu dem ba wér xoo waa dëkk ba ñu ñëw ñu néew doole yëpp mu ne kii ana diw yewil nag wi yóbbu sa kër yow yewil bi yóbbu sa kër ba gétt ga jeex doom ya jooy bàyyi deexagoo miiraas sa bopp da bëgg ñu torox mu ne comme deexaguma ngeen fàtte ma waaye su ma deexee da ma gën a fàtte damaa bëgg bu ngeen ma fàttee fekk dee naa fekk man fàtte wu moon sama bopp jiital naa lu baax sama biir bàmmeel te yàllaa ne wa maa tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu indallah kon loolu lu jaraja bàyyi xel la nit ku nekk boo dee ñaari question ngay bàyyi bii ñi nga bàyyi gannaaw ñoo koy laaj bii ñi ngay fekk ñoo koy laaj ñi nga bàyyi gannaaw ñooy laaj lu mu bàyyi ña ngay fekk di malaaka yi ne lu mu indi cey bu fekkee li nga indi ëpput li nga bàyyi gannaaw nga perte cey boo pertee bala nga bàyyi gannaaw ëpp li nga indi nga perte moo tax kon boo dee rek ñi nga bàyyi gannaaw lu mu bàyyi gars yi ne pourtant bàyyi na fi de ñaari soxna ak juróom-benni bant ah pourtant tamit nag yàlla ma ne woon na ko gan bàyyi na fi lu mat juróomi étage bii ma nga almadi bee nga parcelle bee nga kër Masaar bee nga kër Njaayloo benn bu ci nekk R plus 2 la bàyyi na fi juróom benni oto nangam ak nangam malaaka yéen ñun suñu yoon nekku ci lim ba ana lim andi ñëw fekk andi wut julli yu baax xalal ja la toppoon ba du julli topp xalal ja mu sax ci xol ba ba du joxe asaka topp xalal ja sax ci xol ba mosta dem makka topp xalal ja mu sax ci xol ba mosta def lu baax ci xalal ji ah su boobaa nag mbol daya dal ah, muy yuuxu lu dégg yuuxum ya yuuxu ba mooy nit ak jinne ñoo ko du dégg yonent bi ne buñ ko déggee xam kon nag bala nga dee saxalal ji di jëm ci fukk ñii ma bëgg a tudd ci góor su ma ko farañ fànceewaatee muy fukk ak juróom ma farañ fànceewaat ko muy ñaar fukk su paree ma farañ fànce jigéen ña buñ ko fara fàncee bu njëkk juróom lañ su ma ko farañ fànceewaatee muy fukk nga boole yëpp muy fanweer balaa dem ci ñii def ko ci sa bàmmeel bi jaamu ci yàlla loo ca bàyyi muy sansu ñooña ku dee ku ne nga yëg nga ñàkk a yëg sa doom dana la donu doom nag lum suufe suufe dana donnu mooy doom dana donu ju góor doomaati doom ju góor dana donu doomaati doomaat doomaati doom ju góor dana donu lum sori sori lu mu suufe suufe dana la donu ku dee ku ne nga yëg nga ñàkk a sa baay dana la donu sa baay nag lum hi kawe kawe dana donu sa baay dana donu bàyyi bàyyi dana doon mooy maamam Malick nag ñaari maam foofu la ko xemale xam na nag danaa la ko wax ñu dem ba ki ñetteelu maam maak la ca su ko defee tamit sa mbokk dana donnu mbokk ñett la ki nga bokk ak ak baay dana la donnu ki nga bokk ak baay rek dana la donu ki nga bokk ak nday rek dana la donu ki nga bokk ak baay nag moom dana la donu du ca doomam donu la ki nga bokk ak nday ak baay dana la donu du ca doomam tamit donu la mais ki nga bokk ak nday moom moom rek kay donu mais doomam du donnu naka noonu baay tëx baay tëx buñ ko waxee mooy ki bokk sa nday ki bokk ak sa baay ndey baay kenn ku nekk ka ngay wax baay tëx mu bokk ak sa baay ndey baay kenn la ñaar la ñett la boo dee dañ la doon baay tëx bi nga xam ne mook sa baay baay rek lañ bokk waay bokkuñ nday dana donnu waaye naka noonu doomi baay tëx bi dana la doon sa baay tëx bile doomam ja dana la doon moo xam baay tax bi bokk ak sa baay ndey baay mbaamu mu bokk ak sa baay baay moom dana la doon du ca xem mais ñoom ñaar ñëpp seen doom danañ la doon demeet jëkkër dana doon ku dee ku ne sa jëkkër dana la donnu su ko defee tamit ki nga xam ne moo goreel jaam bi di muuli neexma kooku naama kooku dana doon muuli neexma bi dana donnu ñii ma wax la nag ci mbëmbëstal fukk lañ xam naa nag su ma ko mbëmbëstalaatee fasale ko a dana donu lu ñuy tuddee asibul mawla day donu su ko defee nag bàyyi cala doomam ja cala do bàyyi tëx cala su ko defee maam doomam doomi bàyyi tëx ja cala ñii boo leen ca dollee ñi fekk ñama njëkkoon a lim danañu nekk ñaar fukk fekk fukk juróom yooyu nga xam ne limoon naa leen kon nag ñii ñooy donnu ci góor ñi boo ko jëlee daal ñi nga xam ne ñooy donn ci góor ñi bi asratin saa xasrul waarithina wabil ishrina qad baana fi taadaadi man nabula man nabala ibnun wa aqun wa amun wa ibnuhum wa abun jaddun wa sawjun wa mawla nicmatin wusila fa fi lumumati infasalta arbaatun wa fi l uquwati aydan xamsatun uqila wa minhum aasibul mawla wa am abin wa amu jaddin wa ma min zaynay kay fasala wa ma min zayni kay fasala kon baay tëxab baay day donu baay tëxab maam day donu mooy sa baay jile ki muy wax baay tëx dafa lay donu sa maam jile ka muy wax bàyyi tax tamit dafa lay donu asibul mawla dafa lay donu ñii nag boole ak seen doom ya doomi bàyyi tax a baay doomi bàyyi tax a maam doomi asib bi yooyu yëpp boo ko dem jël di ko ca jël dana dem ba yóbbu ci juróom mu fekki fukk ak juróom yi ma la njëkkoon limal lépp boo ko boolee muy ñaar fukk ñaar fukki nii ay góor lañ ñoo xam ne dañuy donn képp ku dee moo tax shaa'ir ba wax na ne walwaarisuuna min arrijaali ashra asmaa'uhum ma'rufatun mushtahara al ibnu wa ibnul ibni mahma nasala wal abbu wal jaddu wa in ala wal aqu min ay jihaati kaana qad ansalallahu bihi alqur'ana wa bunul aqil mudli ilayhi bil abi fasma' kalaaman laysa bil kazzaabi su ko defee tamit wala ammu Ah, wal am wabnul ammi min abihi fashkur la daal ijaasi wa tanbihi wa sawji wal muctiqu zul walaa'i fa jumlati dhukuri haulaa'i kon way doonu ñaangoog tabaarakallaahu ca góor ña ku deexati bàyyi fi doom dana la donu doomi doom dana donu lumu suufe suufe bàyyi dana donu lum kaw a kawe ak maam mbokk te ñetti wàll ya dañuy donu ci wàllu nday wàllu baay wàllu nday baay wàllu baay rek wàllu nday rek doomi mbokk ci wàllu nday ak baay doomi mbokk ci wàllu baay ah tëx ci wàllu nday baay baay tëx ci wàllu baay doomi baay tëx ci wàllu nday ak baay doomi baay tëx ci wàllu baay jëkkër ak ki gorel jaam bi ak baay tëxab ak baay tëxab maam demeet su ko defee ñii ñooy ñoo xam ne ñooy donnu nit bu dee ci ay góor jigéen ñi ne ñun nag ñu ne yéen de bu ngeen ne ñun nag war ngeen sant lislaam bu lislaam amutoon du ngeen fi nekk bay wax ñun nag ba lislaam ñëwagutoon waxuma donu waaye yéen dañ leen daan donu ku sa jëkkër bàyyi ay jabar doom ya ñoo koy jabaroo ku yaayam su leen nobut mu jaay leen jël xaalis ba dugal ko ci poosam waxoon naa la ko bañ tolloo ca buntu booba ba alquran ne lirjaal nasib maktasabu wala nisaa nasib maktasab na loolu lépp kon yéen sant leen lislaam ba lislaam ñëw yoonal leen ne am ngeen cër ci seen li yi bàyyi ak li seen doom yi bàyyi ak li seen jëkkër yi bàyyi noom ñoom niñ xamee cër ci yéen li ngeen bàyyi bu ngeen fi nekkati nag di weex bët naan parité lu tax góor xam ñaar jigéen xam benn loolu du fépp di jigéen xam ñaar ji kon góor xam ñaar jigéen xam benn exception la ci miraas duhut buntu yëpp xam na ci buntu yoo xam ne ci miraas góor ak jigéen ñoo fa xam muy mbokk ci wàllu ndey foofa amul góor ñaar jigéen benn ku dee bàyyi ay mbokk yéen a yaay waaye nag bokku leen i baay kii baay ja njaay la sant kee baay ja jóob la sant kenn ci biir mbokk ya dee ca mbokk yooyu ñëw di ko doon en tant que ñoo bokk ñu dañoo bokk ci wàllu ndey aa ah, su boobaa nag ala kulli haal foofa góor ak ñaar amut fa kon ci ay point rek ci la ñëw ñu na góor ñaar jigéen benn mais du fépp ci miraas loolu dinaa ci yegsi waaye tamit bu la lislaam seddi ne yow kat jëlal junne bi nga dugal sa poos dencal lu la ci neex defal kii ñu ne ko jëlal ñaari junne bi waaye kii kat yaa koy dundal moog junneem bii na ko denc yaa koy dundal wax dëgg yàlla bu la lislaam bu jox bu ko lislaam joxutoon ñaar tamit yow nga war a xam maandu ne naa jël sama benn bi mu fekkele ko koo xam ne boo samba lu mu bëri bëri ak lu mu tuut tuut da koy denc ki lu mu bëri la bëri le da koy bokk ak yow bu ngeen xamlee moom mu loru di te lislaam laa darara wala diraara laa yow nga xam denc man may xam ñëw maay jënd kër maa lay dëkkal maa lay woddu maa lay faj maa lay dundal sa junne bi lu mu bëri bëri boo ma ko ëppalewoon tamit dencal rek moo la ca war waaye lépp maa la ko war a defal su ma ko mënul sax bu la neexee ñu bind ko muy bor bala maa dee wala fay ko su ma dee balañ maa miraas fay la ko yow nag loo xam yaa ko moom wax dëgg yàlla bu lislaam doxelu toon nii tamit xel mu rafet mën naa rafet lu ne lii la waroon a doxalee rawatina nag lislaam bi nga xam ne toujours li ñu yonent bi indi yëpp dafa ànd ak xel xel nangu na ko cër xattan na pour jëfee ko sens boobu la ñu am yonent bi lim ñu andi lépp xel nangu na ko ba ko xel nangoo tamit cër am na kartan ci mën koo jëfee waaye bu ñu andiloon lu ëpp suñ xel ñu ëppale ko lim doon bu ñu andiloon lu tolloog suñ xel te suñ jëf te suñ jëmm yi nuñ ko ñu delloo ko ko waaye lim ñu andil yépp jëmmu attan na ko ndax laa yukallifu laahu nafsan illaa wusaha lim ñu andil lépp nangu nañ ne xel nangu na ko looloo waral bu sëyru ne faram nartab walam nahimi ñun de sikkuñ na yàllaa ko yónni mais gëlëmuñ ba na yàlla la ndax lim indi dafa tolloog suñ xel yonente yàlla Iisaa dafa indil nit ñi lu ëpp xel moo tax dekkil ku dee ak wax ak ñi ci biir bàmmeel yeeg yàqasatan laa mën a man ñi jàkkaarloog moom di leen solo lu ñëwagut bu ñëwee dëppoog moom loo reeree boo taxawee ci kanam mu ne moom nga xañee lii nga reeree looloo tax wa unabbi'ukum bimaa ta'kuluuna wa maa taddaxiruuna fii buyuutikum looloo waral dafa ëpp seen xel ñu xëppale ko di naan doome yàlla la ñi nag yàlla la yonent bi nag ñun lim ñi indi lépp fa tolloo xel moo tax xëppale wuñ ko lim lim doon lim ñu indi lépp xeesut xel moo tax xeesale wuñ ko lim doon kenn du yonent bi kon yow jigéen gi bu fi nekk naan parité jigéen ñi fukkay donn ku dee ku nekk sa doom yu jigéen ña danañ la donn kenn mënu ci dara naka noonu ku dee ku ne sa doomi doom ya dañ la donu sa sët yu jigéen ya bàyyeekoo ca doom ju góor waaye sët yu bàyyeekoo ca doom yu jigéen ya bokku leen sant waaye sët bi nga bokk ak sant moo la mën a donu sët bi nga bokk ak sant nag ci doom ju góor lay soqeekoo ci doomi doom ju góor lay soqeekoo demet waaye sa doom bu jigéen bi boo ko xasee maye doomam yu jigéen yooya ñu am ci ay doom ñooñu duñ la donu sa doo sa sët bu jigéen bi doomam yu jigéen yooya duñ la mën a donu ndax bokkatu leen sant bokku leen dara waaye sa doom bu jigéen day donu sa doom bu sa bu jigéen bu bàyyi ko ci doom ju góor day donu sa yaay dana la donu sa maam dana la donu maam nag ñaar la maam ju jigéen ji jur sa baay dana la donu maam ju jigéen ji jur sa yaay dana la donu su ko defee nag maam ju góor gi jur sa baay dana donu dégg nga de waaye maam ju góor ji jur sa yaay moom du la donu kon maam ñeenti côté la ñett yaay donu mais kenn ka du donu maam ju góor ji jur sa baay moo moo jox sa baay sant di sa baay jox la ko far force mu donu la maam ju jigéen ji jur sa yaay dafa lay donu maam ju jigéen ji jur sa baay dafa lay donu waaye maam ju góor nag ji jur sa yaay a joxut sa yaay sant ba lay jox sant moo tax bokku leen dara moom du la donu ku dee ku ne sa jabar dana la donu jabar joo xam ne yaa ko takk xarafagu leen nga dee dana donu jabar joo xam ne yaa ko takk xarafagu leen nga dee dana la doon kenn mënu ki dara wala xarafagu leen moom mu dee da ko doon jabar joo xam ne da nga ko takk ci sëy bu wér ngeen xaraf nga dee mbaa mu dee da nga ko doon buy sëy boo xam ne dañ caa huutee ak wér ga ni ki sëyëb ko xarmal wala sëyëb ko sigaar euh, wala mu ta muy sëyëb contrat wala sëyëb Euh, jaam boo xam ne moo dem maye doomam wala jigéen gu dem maye doomam ak yu mel noonu mbaa mu maye boppam dañ caa wuutee ca wér buñ ko tasut ba dee xam njaboot soqee koo cee danañ donante demeet mbokk dana donu mbokk nag ñetti kaaj la mbokk moo xamee ne yéen bokku bokk baay muy jigéen dana la donu mbaa ngeen bokk baay muy jigéen mbaa ngeen bokku ndey baay dana la donu kenn mënu ci dara yii nag ñooy ñiy donu su ko defee nimit wasaatu wala borom kilifteef foofa tamit jigéen a góor ñoo fay am ki goreel jaam bi bu fekkee jigéen la nekk mu'tiqatu su boobaa jaam ba dee xamut ko ko doon jigéen gaay doon waxalal ci lépp bu doon góor ti mooy doon lépp foofa jigéen ak góor a fay am wala ah kayit goreel na ko mais bàyyi na ñu mën a doon mais mënuñoo jeexal alal jabar euh, doom yu jigéen la bàyyi doom yu jigéen mënuñoo jeexal wala ay sët jigéen yu bàyyi ko ki doom ju góor ñoo mënuñoo jeexal alal demeet ñooñe tey bu paree kon buñ jëlee seen xalal ja buñ xumbee sulusaani buñ xumbut nisif su boobaa nag bu ñoo ngi jëlee lañ jël ba pare la ca des lépp ka ko doon ka ko ka goreel moo koy jël kon fukk yi ñooy ñoo xam ne ku dee bàyyi leen ci jigéen dañ la doon ku dee bàyyi doom ju jigéen dana donu mbaa nga bàyyi doomi doom doo maanaam euh, ibnatul ibni doom bu jigéen bu soqee ko ci doom ju góor waxuma doom bu jigéen bàyyi waaye ko ci doom bu jigéen de waxuma doom ju jigéen bàyyi ko ci sët bu jigéen de waaye tamit nag na bàyyi ko ci doom ju góor naka noonu tamit wala nga bàyyi fi yaay wala nga bàyyi fi maam di jur sa yaay mbaa mu jur sa baay di jigéen wala nga bàyyi fi mbokk mu ngeen bokku nday ak baay mbaa ngeen bokk baay mbaa ngeen bokk nday ah dégg nga demeet wala nga bàyyi fi euh, jabar wala nga bàyyi fii ki goreel jaam bi su boobaa ñoom ñii ñëpp danañ donu ñoom ñëpp tabaarakallaahu la sëñ daara Aliou Sakho tënk ne wal waarisaatu alal ijmaali iddatuha sab'un wa in fusilat fal ashru ma xasala bintun wa bintun wa ummun jaddataani zaw jëtun wa uxtun bi tasliisin wasaatu wala ñii tabaarakallaahu ñooy ñoo xam ne ku dee ñoo lay doon kon nag ku dee ku fan fanweer ñu ngi jonkanu saxalal ji fanweeri ñile ñaar fukk ña di góor fukk ya di jigéen boo ko boolee muy fanweer ñooy ñoo xam ne am nañ cër ci sa alal ji su ma nee ñooy donu nag tekki hut ne ñoom ñëpp dañuy donoo ndoor déedéet di duñ donoo ndoor ñii ñëpp tey buñ dajee woon juróom rekk a ci donu soo fi dee woon bàyyi fi doom yu góor ak ki jigéen bàyyi fi ay mbokk ki ki bàyyi bàyyi fi soxna mbaa nga bàyyi fi jëkkër la coow lay bëri bëri juróom rekk lay doon mooy ndey ak baay ak doom doom moom muy góor ak jigéen ñeent ñëw na kenn ki ñaari way dencante yi muy jëkkër mbaa muy jabar jeex na kon ñi fan fanweer yi ñooy doonu waaye tekkiwu na ñooy doon ndoor ñooy doon ndoor joogi nag lu jar a bàyyi xel ñu ne ko bu nit ki dee nag ñi vérifié gannaawam fanweer ñi kenn nekkut fa nu ñu def xalal ja boroom xam-xam yi ne bu fa bayti maal nekkee muy banque jullit ñi. waali bi ko méngoo nekk ku maandu dañuy jël alal ja def ko ca bayti maal mu dellu ci jullit ña su yàlla dogalee mu dee foofa mu dee bayti amut fa wala bu fa nekkee tamit waali bi ko méngee moom moom ci boppam jubut ragalul yàlla day lekk alal ja dañ koy toxal dem jox ko zawil arham ya mooy waa meenam ñi ko warta doonu ndax ñi ma du tudd nii nijaay bokkut ci de ñi wàccee ko wàcce waayu yaay ndax mbokk la xam ngeen ko de doomu nday yii ma wax tamit bokkut ci de ñoo ñëpp kenn ku nekk kala booleeg new ba ta doon donu ñu jël cërëb kooka jox la ko kon nag noonu lañ leen koy defee ba mu jeex muy zawil arham yi wal malu in lam yakun min haulaai ahadun yaxtaasuhu baytu malin amruhu muctadala wa qiila in lam yakun baytun wa muctadalun fa dafcuhu li zawil arhami qad qubila kon nag loolu tabaarakallaahu leer na naññi ku dee fanweer ñii bawoo fi kenn nañ jël sa def ko ci bayti maal ndem am na su amut wala bu amee waa waali ba maanduwut ibnu arafa jëlee na ca e, maanaam abi omar ibnu abdul barri mu ñoom ñooña tamit ñu jëlee ca turtu ñu jëlee ca maanaam baaji jëlee ca ibnu qasum mu dem ba ibnu rushd tamit tudd na ko ak ibnu yunus ak ñu mel ni ñoom ci mazhab bi ña ngi ca dëppoo bi gàddaay gi amee ñaar téeméeri xat lañ dakoor ne bu lii xamut daal nañ wàccee xalal ja wàcce waay jox ko ruuxum ya mooy meen ma kenn ku ci nekk ñi wàccee ko wàcce waayu la ko boolee néew bi jiital ki war a jiitu teg ca ka ca war a tegu su fekkee dañoo tolloo ci daraja nag su boobaa ñoom ñoo ña tolloo dañ leen dañ leen séddale cërëb ka boole ñoom ñi séddoo benn cër ba su ko defee kon nag ah, noonu lañ koy defee nga jël masala nag boo koy def bëgg am tawaafuq laam ah, tamaasul laam tadaaqul la ak yu mel noon da ngay def masala ya nag ca cëri ña leen yoor waaye doo ko def ñoom ki seen cër ya su ko defee nag kon xalal jàngoog loolu tamit la ñuy jël koo xam ne dafa dee yàlla dogal bàyyi na fi alal bàyyi na fi ñu koy doon mais ña koy doon mënuñoo jeexal alal loo fi bàyyi jabar manta ta man ta jeexal alal bu ñu ñeent sax mun nga jeexal alal luñ bari bëri comme doom xamut nañ leen jox ru boob a ngi dem ñetteel ñeenteelu xaaj ba ñetti xaaj yëpp nag ku koy doon néew fi wala loo fi bàyyi mbokk ci wàllu nday kese kenn la ñu ne waaw ñu ne sudus ba na dem xumb nañ ñu ne waaw ñu ne kon fahum surakaaw fii sulusi ñu ne wala loo fi bàyyi nga ne doom yu jigéen kenn lañ nga ne waaw ñu ne ñu jël ni siif ba ta dem ëpp na benn xumb nañ muy ñaar jëm kaw ñu ne waaw ñu ne nañ leen boole sulus ba sulusaani ba kon su boobaa nag la ca des yëpp nañ ko dugal ci baytimaal su fa baytimaal nekkut mbaa mu nekk fa te ku maandu nekkut fa ñi seet ca wàllu meen ma kenn ku ne kala booleeg néew ba te doon donnu ñu jox la cëram su ko defee tamit nga nga nga donn ko ñu jël xalal ji waaye duñ kenn du jël xalal ji di ko pasar pasare di ko yàq di ko jox leneen kon nag alal jàngoog ci way donnu ñi li ci des nag ah mooy tey dama lay wax nag cër yi ndax boo xamee ñi donnu ta xamoo cër yi tamit du doy da doy waar su ma la waxee cër yi nag wax la kenn ku nekk cër ba muy donnu xam na ci cër li ñu tuddee nisif mooy genn wàll am na lu ñu tuddee rubo mooy ñeenteelu xaaju alal ba am na lu ñu tuddee sumunu mooy juróom-ñetteelu xaaj ba am na lu ñu tuddee sulus mooy bu ñu ko defee ñetti xaaj benn xaaj ba am na lu ñu tuddee sulusaani mooy bu ñu ko defee ñetti xaaj ñaari xaaj ya am na lu ñu tuddee sulus mooy bu ñu ko defee juróom benni xaaj benn kaaj ba ñii lii la tuddee lii la lii mooy miraas lii mooy cër yi cër yiñ tudd ci miraas alquran tuddu ko lii la nisif rubo sumun sulus sulusaani sudus muy juróom benni xaaj rek moo nekk ci miraas moo tax ku amul nisif rubo nga jëm ku amul rubo sumun ku amul sumun sulus ku amul sulu sulusaani ku amul sulusaani sudus mais mënoo donn ci cër génn juróom-benn cër yi kenn mënu koo génn far force nga nga nga bokk ca ñay am ci juróom-benn cër yi benn waaye maa ngi donn juróom cër yi aw ma ci benn kooku mënta nekk juróom-benn cër yi faw benn nga ci mën a am su ko defee nag euh, danaa la wax. juróom-benn cër yooyu yëpp tabaarakallaahu benn bu ca nekk ak ña koy doon cër bu ma lay njëkk a jox mooy sulusaani suñu jëlee alal ja def ko ñetti kaaj ñaari xaaj ya bu doon ñetti million ñaari million ya ñu koy donu ñooñu ñeent koy donu ñeent ñoo ñuy donu lu ñuy tuddee sulusaani mooy ñaari doom yu jigéen képp ku dee xam ñaari doom yu jigéen jëm kaw bu xeboo di fukk bu di ñaar téeméer ñoom ñooñu la ñuy boole sulusaani bi comme xëpp na benn jëm kaw rek mat na ñaari jëm kaw rek ñoo moom sulusaani ba bu jëlee alal gi def ko ñaari xaaj ñoo ñaari xaaj ba kon bu doon ñoom ñi rek duñ mënuñoo jeexal xalal wala nga dee bàyyi ñaari sët yu jigéen yu bàyyi ko ci doom ju góor jëm kaw ñoom rek nga ba ah ñoo bokku tamit sultaani ba ñoom foofu ñoom ak doom ñoo xem doomi doom ak doom ñoo xem daraja foofa su boobaa buñ fa nekkee ñoom ñaar yëpp nañ leen jël ñaari ñaari xaaje leen ko ñu dem mu ñaari millions ya ci ñetti millions ya wala nga dee bàyyi ñaari ñaari mbokk yoo xam ne yéen a bokk ndey ak ñaar lañ jëm kaw nañ leen jox maanaam sulusaani ba ñu dem séddoo ko dem jeex na wala mu dee bàyyi ñaari mbokk yoo xam ne rek lañ bokk ah kon nag ala kulli haal jëm kaw ñaar lañ jëm kaw ci waay bàyyi rek ngeen bokk te jigéen lañ ñii ma wax nag jigéen lañ nag su boobaa kon nag jox leen sulusaani bi mooy ñaareelu xaaj ba tañ dem kon nag uxtaani li abi sulusaani uxtaani shaqiqataani fa aksar sulusaani bintal ibni fa aksar sulusaani bintaani fa aksar sulusaani waaye lii lépp bu ma koy wax mooy bu ñu xamul ku leen xasable ñii ña bu ñu xamee ku leen góoral duñ jël sulusaani ba de dañuy ànd ak leen góoral góor ñaar jigéen benn ba mu jeex mu jeex kon sulusaani ci miiras ñeenta koy donu ñaari doom yu jigéen ñu ànd ñoom kenn kese jëm kaw ñaari sët yu jigéen yu bàyyee ko ci doom ju góor jëm kaw ñaari mbokk yoo bokk ak yu jigéen jëm kaw ñaari mbokk yu jigéen yoo bokk ak baay jëm kaw ñii ñooy doon sulusaani ba alquran jeexati dootoo gisati ku doon sulusaane ku dul ñett ñeent ñi sulus moom nag ñi koy donu man ngaa wax ne sulus képp koo xam ne da ngaa dee ñaara koy don ku dee bàyyi mbokk ci wàllu ndey dee nga de su boobaa Eh, eh, nga danga da ngaa bàyyi eh, maanaam suro surokaaw fi sur da ngaa bàyyi mbokk ci wàllu ndey ndey rek moo leen boole ndax moom Jóob la sant tabaarakallaahu yow nga sant Njaay yéen a bokk ci wàllu yaay waaye bokku leen bàyyi ju leen meññi kooku nag ñaareel ku bàyyi ji am ku ku ku bàyyi ji ku yaay ji am na nattu sëy wala mu njëkkoon a sëy yàlla dogal am ku ca dee mu amaat ku ko doon waxaat kon dañoo bokk ci wàllu ndey ñoom mbokk yooye bu ca kenn deexee xam ne ñoo bokku ci ndey waaye bokkuñu nag baay kon boobaa buñ xumbee mat na ñaar jëm kaw góor lañ wala jigéen lañ wala góor ak jigéen lañ ñoom ñëpp la ñuy boole sulusaani bi buñ koy séddoo nag kenn du xëppale sa morom xamul góor ñaar jigéen benn ñëpp ca xem la moom la alquran ne fahum surakaa'u fi sulusi naka noonu tamit yaay su fekkee yaay moo fi nekk te amul doom juy donu nit a dee bàyyi yaayam te bam bàyyee yaayam bàyyiwul doom bàyyiwul doomi doom ju koy donu su boobaa yaay ja moo moom sulus ba naka noonu bu bàyyiwut bu dee bàyyi yaay ta ta lam bàyyi tamit bam bàyyiwul doom ju koy donu bàyyiwul sa bu koy doon na fekk tamit bàyyiwut lu hëpp mbokk lu hëpp ñaari mbokku jëm kaw waaye bu matee ñaari mbokk euh, ci wàllu tabaarakallaahu ñaari mbokk moo xam yu góor lañ wala yu jigéen lañ ci wàllu ndey baay mbaa ci wàllu baay wala ci wàllu ndey mat nañ ñaar jëm kaw yaay dafay tuxulu ci sulus jëm ci sudus kon sulus daal ñaara a koy donu mbokk goo xam ne yaaye leen boole waaye foo ko fekk ñaareel ñu bokk ci wàllu yaay du duñ mbokk yi sant kii day sant Njaay ki sant Jóob kii sant Siise ñoom ñoo ñooña kenn deeca kenn di ko donn comme en tant que ñoo ñoo bokk ñoo bokk yaay su boobaa suñ matee ñaar jëm kaw ah mbokk ya buñ matee ñaar jëm kaw kii Cissé la sant kii Njaay la sant kii Jóob la sant wala ñaar ñaa sant Cissé kenn ka sant Ñas kon kay mën nañ ñaar jëm kaw góor lañ wala jigéen lañ wala góor lañ aki i jigéen kon ñoom ñëpp lañuy ñuy boole sulusu euh, seen mbokk ma seen mbokk mooma ñetteelu xaaju alalam ba mbokkam yooyu ñi bàyyi ñoom ñoo ko moom ñooy bokk benn benn ñetteelu xaaj ba kooku mooy fahum surakaaw fi fi sulusi bu ñuy séddoo ñetteelu xaaj ba nag kenn du ëppale sa morom ñëpp ca xem su fekkee tamit ki dee dafa bàyyi yaayam heureusement amul doom moom mi dee heureusement amul sët doomi doom ju koy donn heureusement amul mbokk mu mbokk ak bay ak baay wala ñu bokk baay wala ñu bokk ndey bu ko xamoon tamit matuñ matuñ ñaar jëm kaw benn la ci xam kon ba tey yaay dafay des ki sulus waaye buñ matee mbokk ya buñ matee ñaar jëm kaw moo xam ci wàllu ndey moo xam ci wàllu baay moo xam ci wàllu ndey ak i baay moo xam mbokk ya góor lañ wala jigéen lañ wala ay góor ak i jigéen lañ jëm kaw comme daal mat nañ ñaar ci waxin jëm kaw rek su boobaa ala kulli haal la ñuy mooy euh, euh, maanaam sulus ba Euh, bu ko xëppee jëm kaw nag yaay day toxalu jëm ci sudus bu ko manqué nag jëm suuf su boobaa maanaam sudus ba lay doon sudus ba kon ñooñu ñooy cër ya xam naa ne incha allah boo ma toppee suba nag ci waxtu yi ma dugg ak yow ca ñi doon sudus sudus nag moo gën a xumb koy doon dana am juróom a koy doon su ma ca bàyyeekoo danaa ñëw ak yow ci ñuy doon nisif su ma ca bàyyeekoo danaa ñëw ak yow ñu doon sumun su ma ca bàyyeekoo danaa ñëw ak ñu doon ruboo su ko defee nag kon soo xamee cër yi rek nag miraas mii yomb la su paree ma ñëw ak yow ci ñi nga xam ne ñoom duñ donnu ci cër nu ñuy donoo ñoom dañuy taxaw fële su ñuy borom cër yi jëlee ba pare la ca des lépp ñu jël ko su fekkee ñoom rek a fa ne benn borom cër buy war a jël nekkut fa ñoom ñu jël lépp dem kooku mooy ñu ngi tuddee ñooy ñooy aasi bu ne ñoo xam dañuy xasable ñooñu tamit xam naa ne boo ma toppee suba ci waxtu wi ci laay sof ak yow loolu ma sos ak yow waaye suba ci waxtu wi lay doon suñ bopp darsu bi mooy ñey doonu sudus wax naa la ñi doonu sulusaani ñeent lañ wax naa la ñi doonu sulus ñaar lañ bu subaa nag ma wax ak yow ñi doonu sudus ñoo gën a bëri ñoom ci cër yi juróom ñaar lañ waaye suba ci waxtu wi lay doon inchaa allahu wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu